jigéen yi fi ñoo leen di nuyu ci turu nuyoob lislaam di asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu waaye di jiital ci nuyoo bi kilifa jataay bi di sëriñ Sidi Mbacke moom Cheikh Abdou Abdoul Qadir Mbacke al imam waaye itam di ci toftal mboolem kilifa yi mu àndal ak kilifa yi nga xam ne ñoom la fekk ci jataay bi ñëpp waaye di leen taxagal itam ci pat lab bi di ëttub Cheikh Mouhamadul Amin Niang al imam ci turu Serigne Abdourahmane mi nga xam ne moo fi toogee ak jataayam di ñaan suñu borom bi yàggal ko fi lool te kattanal ko ba li mu am yéene liggéeyal ko euh, Serigne Touba waaye ci liggéey Serigne Mouhamadul Amin Niang al imam suñu borom jàppandalal ko su ko defee nag incha allah rabbi jataay bi dañ ko fas yéene doxalee nii ma koy bëggoon. gaarale ci ab tënk rek ki nga xam ne moom lay njëkk a jox kàddu incha allahu rabi mooy Cheikh Mouhamadou Lamine Niang euh, mu war a wax ci turu njabootu Serigne Bara Niang waaye tam ngir dalal gan bi ak tatagal leen ak feeñal suñuy mbégte Cheikh Mouhamadou Lamine moomu nag euh, doom la ci Serigne Abdourahmane Niang mi nga xam ne mooy xalifa sëriñ Bara Niang bu noppee dinañ jox kàddu sëriñ Seexuna Buso jumbuleen mu war ñoo defal benn waxtaan bu am solo ci digg ci dundu sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke ak sëriñ Mouhamadou Amin Ñam bu noppee dinañ jox kàddu sëriñ Mouhamadou Fadal Ñam euh, moom tamit mu war a wax ci turu wala ci kàddu sëriñ Abdourahmane Ñam al moom sëriñ Fadal Ñam sëtu sëriñ Bara Niang la su ko defee bu ñu noppee dinañuy jox tamit kaddu ak sëriñ Sidi Abdou Khadir Mbacke incha allahu rabbi moom kaddoom mooy tëj jotaay kon xam naa dinañ jàll ci programme bi rek waaye ñu wax ne incha allahu aaya الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم راودته التي وقالت هيت لك وقالت bismillaahi rahmaani rahiim assalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh yéen mbokk yi tedd yi nga xam ne yéen ñëw ci pàkk bu lab bi njabootu Cheikh Abdoul Khadir Mbacké imam ma ngi leen di siyaara bu baax di dalal ci seen ëtt bii di fas yéene jàllale ay bayit yu gàtt ngir feeñal suñu mbégte waaye dalal leen wan leen ne leen li ngeen def rëy na lool ci ñun ñu ngi koy defee nag ci turu njabootu sëñ Baara ñu ngi yëpp te ka nekk sa bopp ba di sëñ Abdou Rahman ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi bismillahi rahmaani rahim léegi nag ñu ko tënkee baxaru bi ñu ko tënkee mooy baxaru basit ahlan wa sahlan bikum ahlan wa sahlan bikum ahlan wa sahlan bikum góor ak jigéen maire ahlan wa sahlan bikum ahlan wa sahlan bikum góor ak jigéen maire yi waa penc maa ngi béral ak cant képp ku teew ndax yàlla moo wax santal bul borox ndeeri waa penc maa ngi béral ak cant képp ku teew ndax yàlla moo wax santal bul borox ndeeri contentement moo laxal suñ cër yi xol yi di fuur suñ cant kee teemu yaas xaqan ba koy seere contentement moo laxal suñ cër yi xol yi di fuur suñ cant gee teemu yaas xaqan ba koy seere cax naa la caqi ba mooy cantuk ngeneel gu dajal suuf ak lamiñ lammiñ koo joore cax naa la caqi ba mooy cantuk ngeneel gu dajal suuf ak samaawaatu làmmiñ banti koo joore làmmiñ du wax ba dajal yëg-yëg gu mag gi ñu yëg di ñaan borom fay ku teew wér laq miliyaari làmmiñ du wax ba dajal yëg-yëg gu mag gi ñu yëg di ñaan borom fay ku teew wér laq miliyaari di sant tey kilifa jotaay bi sañ siidi mii tooge fi toogaay tooge fi toogaayu sëñ seex matuk fóore di sant tey kilifa jotaay bi sëñ siidi mii tooge fi toogaayu sëñ seex mat ko tey fóore ahlan bikum bay na naa ahlakum ahlan bikum bay na naa ahlan jigéen ñi ahlan ci géewi adab ahlan ci seen foori ahlan bikum baynana ahlan ci géeji xolwum ahlan ci géewi adab ahlan ci seen foori ahlan ci jàmbaar yi waraw ahlan ci jàmbaar yi raw ahlan ci mbekkeeti jub ahlan ci ndaw yu nu yar ahlan jigéen góori laa xayba fiikum siwaa annan nasiila bikum yaslu hanil ahli wal awtaani wal azami ma fa teleeti sëriñ baara ak sëriñ jiili nañ ànde woon cof ci aslaf narti koo joore ma teleeti sëriñ baara sëriñ jiili nañ ànde woon cof ci aslaf narti koo joore seen ñaari wajjure bokkoon maam aminta buso ak maam xari doomi ndey lan kon na seere seen ñaari way jura bokkoon maam Aminta Bousso ak maam xari doomi ndey lan kon nan na ngeen seere bëggante soppante foo gis kee gisaat ka ca des nuróole ay jikko fullaak fayda daa bëggante soppante fu foo gisee kee gisaat ka ca des nuróole ay jikko fullaak fayda daa biyee loolaa taxoon al imam si Abdul Xadir loolaa taxoon al imaam jël doom ja sëñ muudu jëbal sëriñ baara muy ndongaam ba di fóore loolaa taxoon al imaam jël ja sëñ muudu jëbal sëriñ baara muy ndongaam ba di fóore ngir doylu gim doylu sëñ baaraak cofeel gi mu am ci moom badaa ko digal guddeeg bëccëg noori ngir doylu gim doylu sëriñ baara cofeel gi mu am ci moom badaa ko digal guddeeg ba cëg noori cofeel ga moo law ci seeni doom ba taw ba tax li am cofeel ga moo law ci seeni doom ba tax li am bëggante gaay dox ba tey dib lamp buy leeri cofeel ga moo law ci seeni doom ba tax li am bëggante gaay dox ba tey dib lamp buy leeri du fay ba mukk bu doon am ndox du niis wala ngir ab taal la buur yàlla moo koy xam fi du fay ba mukk bu doon am ndox du niis wala ngir ab taal la bul buur yàlla moo koy xam fi dëri di ñaan ci barkeb sëriñ Tuuba ak sëriñ Jiili ngeen yàgg ñoo jiite tey jëf yàlla buur seere di ñaan ci barkeb sëriñ Tuuba sëriñ Jiili ngeen yàgg ñoo jiite tey jëf yàlla buur seere yàggal fi sëñ seex mu ñuy wommat weye ndigalam yewoo fi attam di xëy toolam di bay waari yàggal fi sëñ seex mu ñuy wommat weyal ndigalam yewoo fi attam di xëy toolam di bay waari sëñ baara ndongali moo doon jéemi tey bagaway na buur bi fay ko te barkeel baat ya muy jóore xamdan li seen xarsi xéewal ak salaamu ala nabi wal ali wal ashaabi ñay wóore ay jërëjëf Cheikh Mouhamadul Amin euh, taalif bi am na solo lool am na xorom te làmboo na ay maani yoo xam ne yu tegtale mbégte la aw dalal ci sunu gan yu tedd yi donc su ko defee rek incha allah xam yi dañuy jàll ci programme bi comme ni ñu koy waxee woon rek waaye tam du ñàkk incha allah rabbi bàyyi Lamine Diop Cheikh Mamadou Lamine Diop asaaye ginnaaw bu sëriñ Cheikh naa Bousso ñu mën a def waxtaan mu indi ay kàddu ay mbéyum yu néew rek ci diggante sëriñ Baara ak sëriñ Abdou Khadir allah kon xam naa ne dañuy jox sëriñ Cheikh naa Bousso rek mu defaral ñu waxtaan ñu teewlu baax baax rek ndax ñu mën a gën a jëriñ baax baax. kon sëriñ bi jeexal naa bismillah